di chanteloo kon moom tonton Maako dalu ci ndax yaakaar naa ni astu moom euh, du nooy neexu kenn kon moom tonton Maako kenn la nekk di manipuler ci kër gi muy euh, bu ndaw waaye ñeneen ñëpp am nañ seen fulla am ba nag euh, mënul si ñoom ñu jàll ci sawru sawru nag moom mu ngi corriger mu ngi corriger bu ndaw sa manière di ko corriger nag ci manière boo xam ni bu baax la ndax tey ki nga xam ni moo di bu ndaw koo gis xam ni moo ngi regretter même bu fekkee itam nanguwul assumer regret yooyu waaye nag ku ne xam na ni bu sañoon lim defoon du ko defati ndax digganteem ak sawru neexatul te ñëpp xam ne neexatul sëwrul sëwru euh, gis nañ ni ay décision yu ferme la jël si moom te nag ni muy waxee ak moom sa neexatul fulla ak fayda rek la koy wan te it nag gis na ni euh, ay caprice bu ndaw toppatu ci te it nag lijjantee du ko sax ñu jàll ci ba bàjjen comme toujours rek ni mu koy defee mi ngi recadré ay doomam ba tax na tey mu xas njaago ba mu ràpp ndax nag njaago li mu bëggoon mooy daal di bàyyi bu ndaw alors que moom bàjjen du seetaan loolu ndax ku ne xam na ni kenn bëggul yar say doom bañ màgg ñu nekkoon benn ñëpp nawloo leen tey ñu jéeg saay ne dañuy bàyyante loolu benn euh, yaay bugg ko te juru leen waaye nag ñoom ku xam na ni euh, seen famille bi dafa mel ni rek famille boo xam ne ñu bokk ndey ak baay waaye tey wujje yàq na ko sëy yàq na ko ba tax na kon li ñuy wax rek jigéen euh, bu am problème rek góor moom moo ko def waaye tey loolu day dëggu ndax tey euh, njaago ak bu ndaw góor rek moom moo mënoon tàggale seen diggante ndax seen diggante nekkoon diggante bu sincère boo xam ni mbëggeel bu sincère boo xam ni kenn rek mënu ci woon dugg tey nag bàjjen li mu bëgg mooy ki nga xam ni moo di njaago kon donte nag xam ni mook bu ndaw mënuñoo bàyyante waaye nag eh, njaago moom kon nee na na rek le bu ndaw wala su ko deful moom dina ko defal boppam kon moom njaago mel na ni bëggatul kenn di ko këlëkale bëggatul bu ndaw di ko fontoo ndax jàpp na ni bu ndaw moom moo koy tooñ ñu jàll ci moom njaago moom nag gis nañ ni eh, dafa bëgg rek lu leer ci digganteem ak sawru ba tax na kon mu bëgg sawru daal di réglé bu ndaw ndax moom njaago jàpp na ni bu ndaw li muy dafa ëpp nag ñëpp dañ koy eh, seetaan ñu jàll ci moom bu ndaw moom nag gis naa ni muusul te it du xalaat ndax nii rek di déglu ay waxu tonton Maako si tonton Maako à chaque fois moo koy dugal ci guuta yoo xam ni xam ni mu ciy te boobu ba tey nag mënul comprendre tonton Maako ndax moom lu tonton Maako wax ko tonton na wala baaxul waaye nag daal di li mu ko digal mooy mu a nag ëmb ndax nag bu ëmbee yaakaar na ni dina mën a rek moom euh, góoram waaye li mu xamul mooy sawru bi amoon ak sawru bu léegi bii du benn ñu jàll ci bàjjan bàjjan moom it woon bu ndaw ngir waxtaan ak moom ngir nag mu daal di def ndànk ndax yaakaar naa bu ndaw fa mu jëm euh, bu teggiwul tànkam wala bu reculer wul rek sëyam dina tas te bi bu sa tasee mooy tas définitivement ndax bu ngeen fàttalikoo bu ndaw tas na ñaari yoon te sëy bu tasee ñetti yoon euh, sëy boobu dootul dagan tànk rek euh, baara sëw ji amu ci kon moom bu ndaw bu réglé wul dina rek daal di ñàkkaat sëyam waaye moom bu ndaw dafa am ci boppam confiance ndax jàpp na ni sawru da koo bëgg raf njaay nag day wax naan fu naagu daagu te ku ñu raw la kon moom bu ndaw confiance mu am ci moom su ndax niñ ko gisee rek muy comporté woo mooy wane ni bàyyi bu ndaw du dara ci moom ñu jàll ci njaago njaago nag moom li muy wax jamono ji gis nañ te loolu na rek euh, ko yàqal lu bari ndax sëwru sonn na ku gis sëwru xam ne sonn na te it nag mënatul ndax tey forcé nañ ko ba dugg ci polygamie nga xam ne moom mosul bëgg polygamie tey jii nag indil nañ ko problème ndax li doon bañ ci polygamie yëpp gis na ko tonton Maku nag moom it da cee bëggoon dolli ci xar mi karaw waaye nag du jàll ndax ni muy manu manipuler ki nga xam ni moo di euh, bu ndaw noonee mënu ko manipuler njaago ndax li wax njaago bu doon la ko wax te kër gi tas waaye njaago moom loo wax day bëgg a laajte ba mu leer balaa moo euh, daal di réagir loolu moom moo tax tey ba sëwru euh, wala tonton Maako waxoon ko ni ko dafa gis sëwru ak astu waaye bu njaago buggee dem laajte te xam na ne bu demee dina da cee daal di génn mu set kon moom bu ndaw rek a manipuler ndax lu mu wax bu ndaw bu ndaw du ko waxaat alors que bu dee njaago moom du am da lu mu ciy nëbb dëgg bi yëpp lay wax ñu jàll ci astu astu na bañ na ne du liggéeyal bu ndaw comme ko ko sëwru ndax sëwru Marou da koo xamal ni Daago rek lay euh, liggéeyal nag loolu euh, da cee rek indi problème ndax jàpp na ni rek ki nga xam ni wax na bu ndaw ne ko rek ñoom mu digal ko mu daal di corrompre euh, ko ci bu ndaw daal dina koy accepté comme li ma waxoon sànq rek bu ndaw bépp idée boo ni tonton Makou ko da koy daal di accepté alors que loolu moom moo koy yóbbee musiba saa ci beneen séquence muy diggante astu ak sawru ñu gis ne nag ñoom ay grand ak petite sœur la ñuy xoolante nag mel na ni bu yàggee leneen dina ci dugg ndax ku ne xam na ni góor ak jigéen bu ñuy jege wantoo rek seytaane mën na cee am yoon te astu ak sawru jamono yi jege wantoo nañ trop ñu jeexal nag tonton maaku tonton maaku nag yaakaar naa kuy seytaane wala kuy jaxase ba egsi si moom dangay toog ndax moom moo jox idée bu ndaw ba noppi génn ci ginnaaw digal ki nga xam ni moo di astu pour bu ko bu ndaw rompre mu jouer le jeu ko ne ko danaa bëgg a corrompre kon yaakaar naa ni moom tonton maaku a mu bëgg mooy tas gi diviser pour mieux régner la bëgg tas gi tasa te nag du ci feeñ bañ waaye naka li mu xamul rek mooy di ci euh, bu ndaw du si ñeneen ñi bu ndaw bu ko nëbbalee ay ayibam itam bu ko nëbbalee itam yi muy wax ñeneen ñi moom duñ ko def kon boo ken def na di foofu la yem ci épisode cinquante bu série contre polygamie ma jox leen dig daje si beneen épisode waaye laata boobu way leen di abonné ci seen série TV te bu leen fàtte ba si de notification bi pour ngeen di jot suñu vidéo yi à temps jëf